fichier ba day ah. ay problème kese la de tribune yéene kaay ne en tout cas opposition bi day waaw daal di xotti kon liggéey bi nga xam ne experts internationaux yi liggéey nañ ko ci fichier électoral boobee ba pare daal di koy sànni kon ca poubelle ba allahu akbar la ilaha illallah te day ñooñee seen liggéey ba waaw jàppoon nañ lu baax la amul kon benn sikk laa la de résistance ba day waaw opposition ba dama ne la dañoo gét doon liggéey bi nga xam ne doon nañ ko def nag ci commission politique boobee parce que jàpp nañ ne gis nga liggéey fichier ci am yenn yoo xam ne daa saful yàpp saful jën laa la wax kenn xamul lan la ay incohérence yoo xam la laa la wax ah waaw benn lu tooloo juróom-ñeenti téeméeri junni ci ay doomu adama day waaw dama ne la ay extrait de naissance la ñu bindoo kon ca liste yooyu eewaay eh Samba ñaar lu ëpp kon juróomi téeméeri junni ci ay doomu yoo xam ne kon dañoo changé seen lieu de vote laa la wax boo leen ñoom ñëpp day lu tolloo benn million ak genn wàll un million cinq cent yoo xam ne ay extrait de naissance la bindoo ak yenn saay ay certificat de résidence bu ñu sukkandikoo ci Saliou Sarr yéeni kas dee média gi ne waaye opposition ba day ñoom daal la ñuy mooy ñu amal élection a wax nit kañ la élection locale yooyee critique yéen a kaane opposition bi de waaw liggéey bi nga xam ne experts internationaux yi daal nañ ko liggéey ni lé d'accord uñ ci tey te d'accord uñ ci ëllëg nag laa la wax ah kon daal li fi xew ni yëpp tabi géej tout ça pour sa ay weeri weer yoo xam ni kon am na retard nag ci lu jëm kon ci wàllum calendrier électoral bi lée waaw xam nga lan lay wane ne gis nga politiciens yi lée lambi golo la ñuy def lambi golo ku jug daanu golo yaa ko moom lambi golo sur quotidien gis nga wàllum fichier électoral d'accord uñ seen biir yaa jum wala la loolu am laa la wax le quotidien yéene kaa ne la wax Mamadou Lamine Diallo tekk ci 24 heures nee na gis nga waxul dara lu dul wàllu bi yoon kese droit dong la wax ci jëm ci wàllum parrainage gi nga xam ni Macky Sall waa këram ci guerre la ñu ko teg laa la wax ak luñ mënul a mënul ne l'observateur ne gis nga ca jamono joojee waaw bennoo bokk yaakaar day mbir ma xajam na de bennoo bokk yaakaar mbir ma fi mu nekk nii neexul de déedéet te la muy saf ak di ko diggante parti socialiste gi lée ak waa APR njaw laa ngay wéedu ne su xamit ne coow juddu na seen diggante parce que Abdoulaye Wilane ah kaddu yi nga xam ne kon dafa nekk ci cellule communication parti socialiste yokk na ca xarma karaw dee parce que nee na ñun waa parti socialiste mais bu ñu neexee am ay bëgg-bëgg di ay ambition ci suñuy gox kan moo ko mën a tere te nag attention bu leen fàtte ne ñun waa parti socialiste dañoo def ay justice de valeur ndax Benno Bokk Yaakaar Ousmane Faye ne dama ne Abdoulaye Wilane la ñeen ni ñay joxoñ da laal la nit ñi ngur di ko wax ci suuf moo ko ca kaw Wilane a dit tout haut ce que tout le monde pense tout waaw kay yéeni kaay groupe fi tërëma jaagi ne waaye Abdoulaye Wilane mi lé est-ce que nekkul ne Abdoulaye Sow ci boppam kon da koo commencé tiital di ko menacé kon ca mairie ba mar di waaw professeur Sané waaw nee waaye xam nga moo gënoon a njëkk Abdoulaye Wilane ci boppam loolee mu waxee ko ca biir bennoo bañ koo kon ca mbedd ma termine yéene kaay ne bennoo boo day ca Parcelles Assainies waaw boo sàgganee ca tas la jëm de mar di Italie day fipp na de

ko wax Fadel Barro day ci source ah nee na gis nga élection locale yi di ñëw waaw maa ngi woo jeunes yi ma bokkal génération yëpp ñu daal di delluwaat nag ci seeni gox bañ a gox goxaan yooyee ak politiciens bu ñu leen ko bàyyee laa la wax dem leen man day Fadel Barro xaw ma kan de waaye ca kaw la gëlay danaa fa dellu laa la wax waaye yaanaa maar ja yemu ca ndaxte nee na gis nga Macky Sall mbirum troisième mandat bi nga xam ne moom lay lay am ni na affaire dem na gëm bopp yaa jum wala maa jum dama ne la Serigne Alpha Mbengue mi lay bàyyi na Macky dem na ca Bougane Gueye Dany direct news ne yori nu ëtug politique yi ak duni askan wi ci weeru mars li fi xewoon waaw kilifa diiney day ñëw sauver Sénégal de Adama Racine Sow ne dëgg la suñu kilifa diiney kay daanaka nii lañ mës a taxawee parce que yéen a ngi fàttali day ña ngi koy xaar ca mbëbës gële de ndaw doléance yu bari évidence yéene kaa ne conseil sénégalais l'observateur day ko sek Mamadou Ndione mi nga xam ne kon moo ko jiite ñu ngi koy tuumaal yorin goo xam ne gu lëndëm lëndëm la wàllum parparloo mar di tali waaw Le Quotidien yéene kaa ne askan we yeewoo ca ndengalee rek ji laax waaw boo sàgganee danay xeex seen biir de parce que Babacar Ngom Sedima mi la askan we yeewoo ca ji laax ca boppam mais moom la ñu àndal tribune yéene kaa ne dogal bi nga xam ne maanaam préfet bi jël na ko ni lée waaw mais askanu ndengaleer ñoo cee perte parce que fiñ ne bu fa kenn bayeeti mais foofee Babacar Ngom Sedima laalu ko woon ñoo nar a ñàkk vox populi ne préfet bu mbuur ba day dakkal na lépp nag waaye gis nga askan wa nga xam ne dañuy yeewoo ca jilaax googee dañoo mere waa ndengaleer laa la wax parce que waa jilaax day jàpp nañ leen waa ndengaleer dañ leen di yàqal 24 heures yéene kaay ne dama ne la préfet bu mbuur ba day dëgg na ca frein a mortala tin yemale na fa liggéey ba source aane mortala gajaga day kuréel ga njaboote waa cité Seydina Limaamu naa ne yoreel la wax le soleil yéene kaay ne jànq yi liggéey ci kër yi ñu naan leen ay mbindaan day a ñu ñuy dund de amuñu contrat dañ leen di exploité di leen harcelé Amar Diop inspecteur du travail la waaw nee na gis nga boo xasee ba soobu daaw mbir ma am weer wu dee fay kon contrat wu liggéey taxaw na alerte yéene kaay ne waaye stade yi nga xam ne maanaam Sénégal amul bennam bu ñu homologué Matar Ba kaay wu évidence yéene kaay ne lii mooy wane ne Augustin Senghor mi la na daa échoué waat le témoin yéene kaay ne kay lañ jam baaraamu tuuma de kaay leen wuyu tribune yéene kaay waa lan moo tax ba waa dee média yi lé Sen TV Zik FM ak tribune nekk ca kanam xanaa fekk sénégalais rek ci seenu bëgg-bëgg ak ay émission yu baax lu jëm nag ci wàllum caméraman yooyee nga xam ne nee dañ leen a dàq ci dee média gi le waaw direction des médias day nee nañu benn caméraman yooyee seen contrat daa jeexoon te joxoon nañ leen tamit préavis <laughs> capital bu toll ni Ndakaaru Njaay jël jóob na ma waaye bu pétrole bi ñëwee day xanaa estat yi danañu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 li wolof naan aw ay day jeex loolu dabagul waa ndengeleer ak Sedima tey la wàllu gën a aay ci ayoo gi ba ci ñu amee gaañu gaañu observateur ne préfet département bu Mbour jël na dogal nag dakkal faf bépp liggéey foofe sa suuf sa jur réeróo bi kilifa gi jël dogal bu ni mel ndax di moytu mu ne yëf yi mu ëpp loxo yëf yi mujj jur ak ñàkk dal ci penc mi. ci kaay bu groupe Futurs Médias waa ndengeleer naan ca pare nanu ngir tënku ci bépp règlement ci wàllu saafara ay wi war a ci kilifa yi waaye nag lañ dul nangu mooy waa Sedima di continuer seeni travaux ñoom ñu toog seeni kër bañ a la woon daaw dunu ko nangu su dee ñu ne saafara amul fileeg nawet bi su ndox tuuroo dina nu bay ay nag du yam ci bopp borom le quotidien la muy tiit mooy yëf yi mujj jur ay wedeen maanaam waa jilax ak waa ndengeleex ndax ñu ne jilax ñoom Babacar Ngom ak projet am la nu jàppale baykata ngi beneen yéeme lool di baykatu yamba tool ba mu ngi ko daan ñongale ci seen kër ci terrasse ba ca kër Massar les échos nu ko xamal teg ca ne du moom kese réseau la sa ndax gendarmerie gàntal na seeni pexe borom tool ba ay waajuram ne musunoo naa ne ndox ne toolu yàmbaa ngi ci kër gi tiim leen ñu waxtaane wàllu jumtukaayu sport yi Sénégal ak cooxe gi ci kilifa football gi FIFA ñoo yabalooni inspecteur ñu gis ne amul benn stade fii ci Sénégal bu mën a dalloo match gaynde football yi fédération bi indi ci leeral témoin ne ay ku daanu ci saret ministère de sports it naka noonu waxi noppi moo waral yéene kaay bi ne Makhtar Ba Augustin Senghor taq nañ ci ripp donte nag te mooy nee na Sénégal am na wërsëgu ko desee wërsëg fu ndaw ak bëttalug match ci premier tour éliminatoire coupe du monde 2022 jële ko weeru juin yóbbu septembre Sénégal yéene fàttali ne mooy premier ci classement FIFA waaye ndàdde ci wàllu jumtukaay yi libération jàpp ne mbir mi gàcce gu rëy la ca nag ñamu ko séddale mooy ministre Makhtar Ba ak président Augustin Senghor ndax nag ñu ne li FIFA kale Sénégal ay détails yu sew sewaan la limab wanag yu doyul ci stade Lat Dior ak ay wàllu vestiaire ak yeneen yéene kaay bi ne fukk ak juróom-ñetti fan ci weeru mai bii nag yeneen i ndaw yu kaaf daañu fi dellu si ngir xool ndax liggéey ya ñu waroon mottali mat naam déet Ageroute moom ministre Mansour Faye bég na ci moom def na liggéeyam na mu waree laa sa ko wax ak autopont Lobat Fall bi ñu doon démb ci circulation bi liggéey bi ci diirëb juróom benn weer lañu ko def ñoom aji route ca ñu sóoraale woon ko ci fukk ak juróom-ñetti weer ministre Mansour Faye bëgg ca teg ca xamle it ubbite geneen ñeel autopont beneen bu Kër Massar laas jàpp ne banlieue bu Ndakaaru ci boppam la ñu désenclavé ci lu bar fast track wàllu politique ak lu ñeel fichier électoral bi muy kàggu mi def mbindu mi ngir wote la tribune lu bari ci lu yanuwul maanaa yu xel nanguwul gis nañ ko ca biir fichier boobee bokk na ca lu ëpp juróom-ñeenti téeméeri junniy aji wote yu bindu ak i kayitu juddu kon gindi ko amagul diggante nguur geeg opposition bi lu ñeel boobee fichier waaye lu ñeel datop wotey gox goxaan yi les échos moom gis ne mbóot yu rëy lañu fekk ci fichier bi juróom-ñeenti téeméeri junni ñu bindoo ki kayitu juddu juróomi téeméeri junni yeneen yu ko defee ak certificat de résidence moo waral sax ñu ne auditeur fichier bi jàpp ne dañoo war a génnee ci loxoy maire yi li nga xamante ni mooy ndefarum certificat résidence yooye am na it ñu ne ay bindu bees yu nu gis ca biir ca nekkunu ci période de révision fichier électoral fichier boobee nag wóor naag wóorul manes na koo demee woteem déet Sud Quotidien la mu gis mooy société civile bu Sénégal ci boppam ak waroo daa am seen biir ci wàllu gis-gis ana kan mooy fexeel ministre Abdoulaye Diouf Sarr laaj la bu lii Quotidien xëy def tey ndax ñu ne cong gi bawoo fu ne jëmee ci moom ca nag ay mbokki boppam ñu mu bokkal langue moom jëwriñ ji nag ne ca liggéey ba yëgalu ko yaramam li Quotidien du ñàkk ndëgërlaay gu mel mu ngi ko gañee ci xeex corona bi maanaam am ca ca gëstu ci seen nekkin mu méngale daanaka ak safara ci waxin Amar Diop inspecteur du travail ne nit moom boo ko xasee di liggéeyloo rek ak pay am ca jàppal ni contrat dox na seen digg contrat de travail kon fu mu la yóbbu jot sañ-sañam métier bi nag di daan doole gi ci kër yi yéene kaay bi ne ak agence de placement yi dafa mel ni ñu ngi koy formaliser ndànk-ndànk le soleil fekki nag jànq yooyee ca fa nuy dajaloo ñenn ci ñoom ci liberté 6 fii ci ndakaaru kuñ ca daan maam jaara di xamle ni moom noor faar la nekkoon di liggéey waaye patronam sonal ko huit liggéey guddi ak bëccëg liggéey bu amul ak dallu li moom it di nettali la mu dund ci Rufisque nekkoon Grand Yoff di bawoo foofee wutali ci Tëngéej daan fa liggéey ci kër R plus 3 mu ne fa beere guddeeg bëccëg ci 40 000 francs kese paas ba ca la lekk gën a ko noonu mu ne daa mujj bàyyi ngir wérgu yaramam ndax nag njariñ loo fekkee Mariama Thiam moom la muy nettali mooy càcc sàcc bu ñu ko daal di jiiñ ci kër gum daal liggéeyee ba tey mu ne ca xol ba métti ko lool mu ne dañ ko sax fayloo muy liggéey ñu koy dag payoor ga ba mu mat mu mel ni kon yërmande war na ñenn ñi liggéeyloo jànq yooyee ci kër yi sant Seck ak Diaw lool war a xoolaat seen doxalin. savon de Marseille créole seen gamme